teew fii nag dafa am sabab sabab bi nak ñaar moko deunk moy le 8 bi passé dañu damul fële ci palais de la république euh, le président Macky Sall woowoon fa pour ñu waxtaan waxtaanu échange ak mom mu xamni mu xamal ni ñu lamb am na ay jafe-jafe ñun rek nekk ñu fa woon composante lamb yëpp fa nekkoon les communicateurs traditionnels les anciens couloirs les sages les promoteurs maanaam branche yi nga xam ne dañu ngànk lamb yëpp ñu ngi fi woon kon boog le monde de la lutte le président Macky Sall invité woon pour am échange ak ñoom waxtaan boobu nag waxtaan bu yaatu la li waral jotaay bi fi nag mooy jotaatu jotaayu waxtaan nag rencontre maanaam tey expliquer euh, lañu fa jëlee ak avancement yi nga xam ne tey ak lu bari loo xam ne tey waxtaanee nañ ko fa muy suñu ay doléance yoo xam ne en toute sincérité euh, bi ci njëkk mooy jafe-jafe bi nga xam ne mbër ñu ngi koy dund làmb di ko dund

ni nga xam secteur yu bare bare bare bare dañuy am bénéfice ci manam logement bokkoon na suñu ay mébét ñu wax ko le président suñu jafé jafé bokku na ci couverture maladie universelle manam tay problème santé ñun tay ahlu lamb dañu am jafé jafé bobu trop momit momit lolu bokku na ci ay mébét yi nga xam tay tey duñ ko wax mébét yoy nak

moom lañu moom la waaw association wala na dem na de la république nous dig wala ñu wax avant que ñu exécuter président en toute sincérité mi ngi am ay avancement te yaakaar nañ ni bu ñu de santé nous, le ministre euh, le ministre de l'habitat dina notre fii ay pour des bureau pour tey teg coopérative d'habitat ak yeneen ak yeneen ak yeneen loolu nag dama koy partager ak suma frère yi nga xam wax dëgg yàlla euh, présence wane nañ keroog ban profil lañu am ci dëkk bi am nañ ci rôle bu mag a mag a mag a mag a mag bu ñu joué boo xam ne tey euh, tey y a plus de 10 mille et quelques jeunes yoo xam ne tey ku ci nekk yaa ngi ñaan yàlla mel ni jëm yi toog pour ne pas citer di di guddal bari na ay suñu ay rak yoo xam ne tey euh, seen yéene seen ay engagement mel ni champion yi wala ñu raw ñu parce que tamit nous sommes partis de rien du tout parce que nag bi ñuy dugg ci làmb li tax ñu dugg ci làmb c'est pour aider nos famille parce que dañu juddu fekk suñu kër kër ku fi nekk tey fekk sa kër di saxaar ku ne làmb nit mënu ci defar ba defar ay nit xamuloo luy làmb parce que ñu ci toog nii yëpp tey daan nañ dem ay jamono di dem entraînement bu ñu fa jógee du ñu am lu ñu ndékkee du ñu am lu ñu lekk du ñu am lu ñu naan kon àddina dara xëyul xëy sotti waaye tey ñun ñii tey ku ci nekk làmb fay na la làmba sagal na la làmba sargal na la est-ce que nag ñun làmb daf ñu war a sargal sagal ñu def ñu lu ñu doon tey fu ñu romb ñu tàccu ñu ñun tey làmb nar a sëngéem am ay jafe-jafe ñun ñi tey du ñu takku takk suñu ndigg pour suñu rakk yi nga xam ne tey c'est des di c'est des milliers de gosses yoo xam ne partout au Sénégal fépp ñooñu tey koo ci tàllal micro lu muy wax mooy dama bëgg dimbali sama ndey dama bëgg dimbali suma baay dama bëgg dimbali képp ku jege ci man ñoom ñooñu tey ñun ñu lekk naan ci soow mi lekk ji ba suur est-ce que ñun war nañ toog làmb am ay jafe nous ñu croiser le bras duñ def loolu moo waral suñu toogaay bii moo waral tey ñu takk suñu ndigg pour suñu yooyu nga xam ne ci ñoo xam ne làmb moo tax ñu voyager illégalement am na ñoo ci fait. gi lañ jaar dem seen yoon parce que gisuñu seen bopp ci làmb gi am na ñoo dañu voyager légalement dañu am dem ñu jox leen visa ñu tukki

parce que moo distribuer le distribué boppam xëyu ndaw ni parce que xamna ni amna na ay anciens gloire yu fa nek xëyu ndaw ni parce que il faut être jeune pour nga bok ci mais amna ay jarbat amna na ay ndija amna na ay rak amna na ay jarbat amna na ay sët ay supporters moko distribuer le bopam ku ci nek patch bu ci nek même organe de presse bi sax président nee jox na len 20 personnes Non la ko séddalee ku ne ñun mbeuri mu jox ñu 150 pour xëyu ndaw ñi mais loolu nag sant ak ngërëm ñeel na ko ñun ku defal làmb dañ la war a sant ku dul sant ku dul sant nit doo sant yàlla yàlla tëbul tëb rek di la di la defaral làmb da yàlla day jaarale ay mbiram ci doomu aadama quoi qu'on dise mooy ñu ngi koy sant di ko gërëm ci yooyu nga xam ne jéego yooyu nga xam ne mu ngi koy dox di ëxlu làmb te lànga nag sëngéem te ñuy ñaan yàlla projet yi nga xam ne mi ngi ci kanam yàlla na ko gaaw mu nekk lu lu suite loo xam ne tey lu gaaw lay doon Euh, fa lay campé débat bi li ci des dañ ko gën a yaatal pour ba bañ a guddal suma frères yi yëpp ku ci nekk ambassadeur ga fa nga nekk ku ci nekk làmb tey mënuñu tudd làmb te tudduñu la ku ci nekk yaa liggéey lu tax tey foo romb Sénégalais yi safoo la tiitooroo la condamné la kon ku ci nekk am nga kàddu am nga sa mot à kon maa ngi jël kàddu yi jox ko Euh, mbëru géejawaay bi parce que tey dem na pale rek dafa doy waar gars yi lu nekk la ñuy wax wala dañuy gisee fu ne te ñu du si tamit ay doomu góor lañu ay jàmbaar lañu te jàmbaar nag taxul nga ne jàmbaar rek yem ci kenn ku nekk fii toog li nga doon yaa ko ñamel sa bopp yaa ko liggéey yaa ci xar sa tànk tubéy képp ku ci yaakaar nga jàppale ko ci kon ñun ay référence lañu aussi tamit ci làmb tey nekk référence aussi tamit taxul nga yaacaar rek toog ñun ci dëkk bi lañ dëkk ci dëkk bi lañu bokk kon ni ko ñëpp bokkee avant tout aussi tamit ay citoyen lañ nekk doomu réew mi di doxal réew bëgg réew mi bëgg Sénégal kon jaadu na balaa ñoo wax dara ak di dugg ci dara réew mi bu amul jàmm dara du dox dara du baax te day ñaan yàlla Sénégal am jàmm ci réew bu loolu weesoo euh, fi may duggaat rek mooy làmb industrie la journaliste bi da ci gis boppam mbër bi da ci gis boppam jaaykatu këram bi da ci gis boppam ba tax na nag gis nañu président de la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 réewu Afrique yëpp réew Afrique yëpp yëngatu na te loolu nag gars yi war na ñibbi seen bët di ci xool senegal nag yàlla moo fi def jàmm maam li Laay fi la nekk Serigne Touba fi la nekk Alaaji Malick Bou Kounta loolu lañ koy santee suñu borom bi nga xamante ne moo ñu taxaw ba réew mi am jàmm kon jàmm jooj dañ ko war a continuer jàmm jooj dafa war a sax jàmm jooj dafa war a am ci senegal kon ba tax na euh, suñu kàddu rek mooy fii dañ koy yemale euh, du gudd waaye daal maa ngi ñaan yàlla réew mi am jàmm président Macky Sall gis nañu aussi tamit vraiment jéego yu muy dox ci làmb ngir expliqué na ko ak famille làmb ndax làmb bu amee jafe-jafe wala paabu feebar ancien gulaar yi feebar day jël ay matuwaayam yónnee te nit ko sax xam te am na loo xamante tamit bu ko nit di def rafet na ñu wax ko parce que ñun làmb lañu am ku jàppale làmb dañ la war a jàppale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 ñu ngi sant yàlla kenn mu mënuñoo jënd tey réew mi kenn ku nekk am nga droit farfu la neex kenn ku nekk am nga droit def lu la neex tey Gris Bordeaux am nañu koy supporté Eumeu Sène Modou Lo Boy Niang Baboy Lac de Guiers numéro 2 kenn ku nekk moom moom yëfam mais nañ ko ànd ci dal ak respect ak yar ak teggin maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë waaw ñëw ñëw garaaw toogal nii rek noonu waaw waaw toogal ngi sant ñi fi teew ñëpp de sant Sénégal bi yëpp mag ak ndaw góor ak jigéen di jaajëfal ñëpp di jaajëfal tamit aussi journaliste yi di nuyu tamit aussi sama mbokk yi fi nekk yëpp li ñu bëggoon wax daanaka kii euh, woon ko bala te lépp lu ñu am ñu ngi koy bokk ak sénégalais yi di ñu def tamit aussi di ci def euh, ay ndimbal ndimbal mooy que képp ku am problème du ñu xam sax ni monsieur le am na ci gox boobu li ñu njëkk a def mooy que ñu sollicité ñu ci feebar ñi ci am problème location ñi ci am problème lu ci nekk nit ñi dañuy kii ñëw di suite di ñu ci wax seen xalaat ñi lañ ciy jàppale kon ñun suñ taxawaay ci gox bu ñuy dëkk am na njariñ ba ci tëbëskeek lu mu di aw dañ ciy jàpp bu baax a baax a baax du dëgg kon tey tamit aussi bu ñu monsieur le président recevoir kon nu muy recevoir yeneen muy médecin muy secteur bu nekk rek ku ci nekk mu invité laajte sa xalaat ci réew mi ñu lañuy wax suñu xalaat ci réew mi ba pare tam aussi wax ko suñu wàllu liggéey naka lañ ci bëgg mu jàppalee ñu si d'abord sponsor bi ñëw na te ñun tamit aussi bu ñu fàtte suñuy rakk suñu ginnaaw la ñuy liggéeyal tey ñun ñoo fi nekk mais jàppaleen ni moom de la lutte moo nekk suñu ginnaaw te tamit aussi jàppale suñu wàllu liggéey ku ñu ko def ku ne rek ñun dañ la war tamit aussi jàppale pour man lu ma gis mooy que président jàppale na làmb jàppale ne sport bi lépp ñun tamit aussi dañuy jug pour jàppale ko toujours loolu la waaw ñu dañ jug tamit aussi pour jàppale ko te aussi ñu ngi si ginnaawam muy man muy Modou muy Boy Niang muy Gris Bordeaux képp ku fi nekk rek pour Sénégal ñun dañ lay jàppale parce que Sénégal moo ñu ñor Sénégal moo ñu ñor kenn du fi nekk ñu lay xeex wala ñu indi benn ko que Sénégal la ñu indi que Sénégal lañ xeex dañ koy jàppale ba keroog mbiram di jeex ñu que Sénégal moo ñor ay citoyen Sénégal lañ juddoo fi lañ màggee suñu maamaati maam fi lañ juddee fi lañ fi màggee Sénégal lañ bokk war nañu mën wax suñu xalaat ci Sénégal Tout loolu la ñu duñu pare nañ pour jàppale Macky Sall ba keroog wàllam di wéy kenn di ñëw jàppale la Sénégal moo ñu ñor voilà loolu la ñu ngi si ginnaawam di ko jàppale lu mu dugg nit ñi dugg te ku ko xam tamit xam ne jàppale na mu ngi liggéey dëkk bi on dit la vérité jàmbaar la nit bu nekkee ci réew nekk njiitu réew yàlla teg ko fi non nañ ko jàppale nañ ko nangul liggéeyam jàmbaar la liggéeyam. ku ne gis na tamit aussi ni senegal mu ngi yokk balaa ngaa xam nga dem ci dëkk Afrique yi Sénégal bi ngi avancé nañ ko jàppale ba mandaam jeex keneen kuy ñëw ñu jàppale la parce que Sénégal moo ñëw pour jeunesse yëpp ñun nag lu ñu am lekk ñu ko ñu kase bàyyi suñu mbokk yi wala ñu bàyyi suñu supporters yi ñu nag ñëpp ñoo ko bokk Sénégal nañ xam ne benn bopp la kenn mu xar ñaar beneen bi tamit mooy yëngu-yëngu dëkk bi na gars yi delloo si xel yi bu baax a baax a baax te xam ne ku fi gaañu jàppale sa bopp nga gaañ képp ku fi am problème jàppale sa bopp nga gaañ sa askan nga lor nañu doon xel bu baax rafetaat bi koy saaga yi mun na mun na mun na ñàkk du dëgg yi mun na mun na mun na ñàkk comprendre ma expliqué kilifa diine yi kilifa aada yi ñuy jàpp tamit aussi lu leen neex rek waaye wax ku jóg rek wax lu la neex nañ ko xalaat bu baax parce que Sénégal musul mel nii. nañu xoolaat suñu bopp bu baax te xam ne ñëpp Sénégal moo ñor Sénégal la ñu bëgg mu amaat jëm kanam wasalaam ba ci kanam. waaw. Modou al oustage ah, waaw saa buy tooy aouzu billahi mina shaytaani rajim d'abord ñuy ñoo ngi nuyu assistance bi fi nekk yëpp muy journaliste yi di nuyu sama mbokk mbër yi di am contentement bu baax a baax a baax teew fii pour waxtaan ak yéen lu tubaab di wax la répétition est pédagogique daanaka li ñu bëgg a wax yëpp ah, ñu fi jaar wax nañ ko muy Gris Balla ak Eumeu d' abord dañuy féliciter suñu U17 yi doon football démb defate nañ jaaroor ci sport lépp di wane ni liggéey la dañu investir ci sport bi moo tax football macha allah jéego yi muy teg ku ne gis na ko ci Sénégal ren jël nañ fi gaa yi ñuy wax cinq rek mais am na yeneen ak yeneen yi nga xam ne kii ko vraiment di leen féliciter bu baax di wax dëkk bi yàlla na fi jàmm yàgg te sport bi mu ngi avancé bu baax a baax loolu nag moom lañu bëgg ci làmb ji te gis nañ ni jéego mu ngi am comme nous Giri wax keroog dem nañ palais président recevoir ñu yóbbu suñu doléance doléance yi yu ñu ci wax d' abord yu bëree ñu avancé parce que man président Bira woo na ma fii di ma wax ministre dafa waroon pour ñu teg pour ñu teg def ben, kii pour tax waa bureau pour def mutuelle de santé bi déjà boobu defe naa taxaw na léegi mu des ci accès ci accès logements sociaux yi te ñu ngi ci am yaakaar bu baax baax comme lu comme lu comme lu mu wax emploi des jeunes yi tamit gis nañ ni président moo ngi ciy def jéego bu baax a baax a baax te Sénégal ñun sport lañu am yàlla ci la ñu nattu ku jàppale sport ñun nga jàpp suñu rakk nga jàppale parce que tey yi ñuy wax yëpp ñu ci bénéficié wu mën nañ ni sax du ñun suñuy rakk la suñu jarbaat parce que ñun ñii tey xam nga ku ci nekk yàlla xaw na la dimbali boo feebaree isam lax ñàkkul foo fajo wala ñàkkul loo fajoo tey isam lax ku ci nekk yàlla dimbali na lu mu ndaw ndaw am nga kër am nga dugal say waajur ba tax na accès même accès logement yi du sax ñun ñoo ci bénéficier wu suñu rakk yi te dañ ne kenn warul ah, mujjé puso mourir sa loxo te tay fu làmb tollu ñun am na noo xam buñ ko buñ ko buñ ko doxalee rek manam dañu dañu mujjé puso mourir réer te warul démé non vraiment di santat encore yalla bu baax ah, di comme le mo wax tamit aduna ah, kuy woté lu jamm rek da fek nga am jamm mais bu ñàkk jàmm ñëwee ku nekk xam valeuru jàmm ba tax na am luy Sénégal li nga xam ne mu ngi raam ci ñàkk bi la jëm te fo fa amee kër dafa gaaw a jógee bu mu fa jëm nag kenn ñaanu ko parce que ñun Sénégal la ñu dëkkee suñu famille fi la nekk suñu njaboot fi la nekk tey bu jàmm amul woon toogaay bii du am toogaay bii du am ñu fi toog bay yaatal ba tax na loolu jàmm jàmm ko gën ñu ngi ñaanaat encore ndaw yi jeunes yi ñu bàyyi seen xel am li nga xam li may wax chaque fois yàlla moom mooy joxe nguur kenn joxe wu te contre nguur sax day day day bokk ci ci weddi ndogalu suñu borom nit nag mën nga bañ a ànd ak moom ci ay waaw ci ay liggéeyam ak yooyu noonu mais yàlla moom mooy far nguur xam nga ba tax na ñu bàyyiwaat xel xam nga bàyyi violence bu ci dëkk bi parce que Sénégal tey ñëpp pays teranga lañ ko xamee bu investisseurs yi ñëw fii di investir parce que stabilité dëkk bi moo tax bu ñeneen di ñëw di wax pays de la teranga parce que jàmm jamu Sénégal tey lebihnya jooju la fi ñëpp xam pare dafa am lu lu leneen lu nekk ci ginnaaw gis nañ dëkk yu bari mu am ci Afrique lu fa xew après muy ñoo ngi yaakaar pétrole gaz yeneen ak yeneen tey ñuy noonu Sénégal yu bari ñoo anture ko entouré di xaar rek ba dara xew ñu dugg ci caxat caxatee suñu yëf loolu nag ñu ñu nekk ci dëkk bi ñoo ko war a njëkk njëkk njëkk a muy taxaw ci jàmm ku ci nekk am nga droit far fu la neex am na ko gars yi waxee ku ci nekk am nga droit far fu la neex ñun ay nit la ñëpp nekk Sénégal nekk ay ñu ci bari nekk ay jullit daanaka bokk bokk ku nekk am kuréel bokk ñu nu ñuy jàmmoo yàlla mais diine ku ci mën a am wute waxuma la ak politique politique yëfu àdduna la dafay jeex mënuñu fexe ba kenn faral ñëpp faw ñuy farfee ñuy farfale mais tamit ku nekk na nangul moroomam position bi fii laa bokk rek keneen ku bokk fële dama koy xas dama koy saaga wala loolu xame wuñ ko Sénégal te loolu du démocratie dañuy wax Sénégal pays démocratie la te démocratie mooy ku nekk far fi nga far am nag loo layalee fi nga far mais du dama far fële kee far fële lu mu wax du noonu même lu mu baax baax lu mu wax lu mu kii kii du dëgg loolu nag moom vraiment di remercier encore euh, presse bi xam nga di ñaanal président naal yi mu naal yàlla dimbali ko ba mu mottali ko que bu yéenee yeggee Sénégal yëpp nekk jàmm Sénégal ñu ay Sénégalais ay citoyen lañ xam nga vraiment ñu ngi wax yàlla na jàmm yàgg Sénégal bëgg-bëgg yi ñu bëgg ñu ñëpp yàlla dimbali ñu mën koo mottali incha allah waaw asalaamaaleykum ñu ngi sant yàlla bu baax juddu si yonent sant suñu ay ñaari waajur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 du mbër sax monde la di ñu ànd dem fa ba ñu demee suñu ay bëgg-bëgg ñu wax ko ñu ànd ak suñu njiit muy Bira Sène suñu ay bëgg-bëgg ñu wax ne lii am nañ ko problème bii am nañ ko problème bii am nañ ko problème bii am na ko président apprécié ko bu ñu xoolee dafa am loo xam ne dafa spécial jour boobu président dañu ko defal mooy palais de la ñu dugal fa ay sabar jour bañ commencé maam Gorgui Ndiaye suñu papa suñu maam di bàkku président dafa ne ana sabar ñu ne ko mu ngi leen dugal leen ñu dugal sabari pour la première fois ci biir pare ñun ñu baaxu wala suñu cosaan loolu dafa wane respect bi nga xam ne daf ñu ko jox parce que ñun ñàkkuñu fulo comme ni ko waxee rek fii ñun ñi ñëpp toog on est parti de rien pour arriver à certain niveau ñun ñi ñëpp ba ñuy commencé zéro lañu ba ñuy commencé yenn journaliste yëpp ba ñuy commencé zéro kenn xamul boo ñaa kenn xamul bala kenn xamul biri giri dañoo ñafa jaayante moo tax ngeen xam ñu moo tax Sénégal xam ñu donc bu doonoon ay yambar yëpp doon ñu xam wala bu ñu doonoon ay yaafus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

da ngay gis benn kër ñuy faral Balla ñuy faral Modou ñuy faral Eumeu Sène am na waaw léegi lu tax mënuñoo nangul ne nag bu politique amee ñuy faral fi ñu faral yi lu tax mënuñu ko nangul Sénégal dëkk jàmm la ñu ñëpp ñoo ko bokk wala mbër moom du citoyen ba mbër bu génnee na man fii laa bokk wala loolu rek dañu ko war a saaga ndey non non non warul demee noonu warul demee noonu ñu ñëpp ñoo far politique politique am na quoi parce que politique benn moment la rek mais politique du àdduna bi yëpp politique benn moment élection day jékki-jékki ñëw ñu dox ci ñi def seen campagne ñi bokk ci comme naan mais du laaj bi yëpp mu nekk politique élection yi bu passé après ku ne da ngay dem continuer sa liggéey mais boo bëggee am dara sa laaj da nga koy ñafe pour am ko comme naan mais nekku ñun élection moo ñu may dara parce que ñun yëpp toog ñu ngi sant yàlla réew bu ñu bëgg a tukki dañuy tukki sant yàlla bu baax bu ñu génnee oto yu baax yi ñu yor ñu ngi sant yëpp di dimbali suñu ay famille di jaayante bu baax a baax kon ñun kenn dafa am moo boobu dama koy dégg mooy métti bu baax a baax mbër dañ leen jënd mbër yi amuñu kóolóore non non bu mu demee noonu ñun kenn mënuñoo jënd suñu prix kenn xamu ko non amuñu njëkk suñu prix kenn xamu ko comprendre dafa baax rek ñu gis dara rafetlu ko apprécier ko wax ci wala ñu gis dara rafetlu ko nga nit di jàppale ñu ñu taxaw jàppale ko loolu la rek àdduna noonu la mais bul gis ni kii ma rek la fait que moom dama war a génn saako ay ndey wax waxu ñu ñaaw loolu demewul noonu warul demee noonu ba pare beneen affaire mi ngi ci mooy kilifa diine yi Sénégal dañ xam ni ñu yëpp réewu tarixa léegi ñuy warmaa kilifa koo xam da ci commenté nga riir commentaire bi sax boo xamante ni ku ñu warmaal la ci dëkk ñu ñëpp dañu war a bàyyi loolu parce que àdduna demewul noonu ñu ñëpp ñoo far ñoo bokk ndey ñoo bokk baay mais bu élection jotee wala politique jot damay nangu yow Balla ñoo bokk ndey baay wala ñoo bokk làmb ji dama nga far fi nga neex ma far fi ma neex li may ñaan yàlla mooy bu ñu yegsee ma gañ la wala nga gañoo bu ñu ñu kafree naandoo ataaya loolu mooy Sénégal ñu loolu lañu mës xam ñu xam ne ñu ñëpp ñoo bokk nday bokk waaye président dafa nekk nit koo xamante ni dafa jàppale làmb li mu defal làmb ne ñu ñu yëpp bu ñu ko waxee bu ñu ko waxul président ñaata ñoo fi jaar kan moo woo sponsor da jàppale làmb war nga jël 500 millions jox ko promoteur nañu waxtaan dëgg nga kenn defaluñu ko mais duñ ko di defaree lu tax duñ ko remercier lu tax duñ ko sant ku wax ci Macky Sall dara yow yaa nekk ku bon yow lañ war a saaga boo waxee keneen dara ñu ne yow yaa yow yaa baax yow yaa nekk nit ku baax ci dëkk dem yow yaa ànd ak peuple bi non noonu dafa am ñaari parti ba ñett ba ñeent ñii far fii ñii far fii léegi nag citoyen lambda bi da koy bàyyi moom mu xor ko doy rek mu far fa mais ñun ñi pariwuñu kenn ne la kaay far bi déedéet dañu am droit rek gis nit mu jàppale ñu gis ni li muy teg paa yi muy teg mu rafet gis ñu kii bu ko jàppalee dëkk bi na dem fenn ñu ànd ak moom jàppale ko yow tamit am nga su opinion bopp nga gis ku la doy nga ne man kii moo ma doy gis naa kii su ma ko saan lekkaat kooku dina am dara ma ànd ak kooku ñu tamit dañ la nangul mais ni la nangul ñu bu ñu gisee kenn suñu xel daal ci moom ñu ànd ak moom la de parce la waaw boo waxee ni man ku ma neex la ñu ci dëkk bi am nañ moom mais lépp ñu def ko ci faux agré Sénégal politique c'est pas la fin du dañuy politique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 donc nak dañuy am responsabilité gis ku ñu neex ñu ak mom comme ci mëna doon ngeen nangul lu ko nak parce que ñun tamit dañ leen nangul ngeen gis ku leen neex ñu ak mom après luy su luy luy partager nit ñi moy élection jot ñu xol ki gagné yalla moko togal yalla moko xam mu gagné dëkk bi nekkaat ci jàmm ñu ko ne loolu laa amoon mooy wax ma ngi sant ñëpp ci gërëm ñëpp di ñaan ñëpp di jàmm comme nak mais di wax ne da bo gisé ñu toog nii ñëpp dafa nek lo xamantene dañ ci and engagé ko parce que ñun ñi fi duñu ay ragal comme nak te kenn du wax lii suba nga wax lee ay frère lañ yoo xam ne dañoo engagé wu ci benn mbir yaa ngi dégg ñu gis président li muy def mu rafet bu baax nekkul wax ji boo ñaamaa koy wax wala ballaa koy wax wala giree koy wax wax ñu toog ànd la tënk ko ñu ñëpp ñu bokk ko donc naan bu ñu ko bokkul woon fii kenn du ñëw parce que xam nañ lan mooy jotaay bi ñu war a jàppale président ndax lu naaj li muy def ñu ko war a jàppale wala réalisation yi muy def ñu war ko jàppale ndax Sénégal am pour mu Hmm? toog fi ah baax na waaw ma toogoo baax na jërëjëf ma dellu sama place ah voilà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 donc ñoom ñoo am solo parce que ñaare ñi nga xamante ni tey ñoo génn àdduna ci li nga xam ne moom moo xew ñu koy lancer seen bopp di ko jaaree nag di sant bu baax a baax a baax ay mbokk bëri ñu nag bu taxawee am na lu ko taxawee moom mooy lan moom mooy ñi xëy xëy yi dama waral li ngay gis nii kon donc alhamdulilah rabbil alamin ba ñu président joxe waxaat bi nga xamante ne tey war nañ soxla suñu jëm suñu yàq kon donc loolu amee day ñu war a toog alguma metodologia moom la fi dooleel salawaat yi nga xam ne ay ñi nga xam ne bu ngeen bu ñu poussé ñoom ñooy ñëw loolu di joxaat encore beneen message seen bu mu fàtte mukk ñu xale yi tey seen